ngir gën mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bëss li nga xam ne moo di cloche bi ngir mëna a jot yooyu les notification asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu seetaan à travers Thiaroye ITV nuyu naa leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax waaw ñu am mbégte contentement di leen dalalaat seen émission kaay ndogu koor gi lañu wax buñ ci nekkee rek dañuy dem xooli les bonnes volontés ñi nga xamante ni dañuy joxe ndogu sax weeru koor ñu seet si waat suñu mag suñu xarit suñu mbokk muy mbëggu Fall Zikroula taalibi sëñ Matar bi ñu koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam moo ñu woo fii nag ci yëmbal Thiaroye mën naa ne moom fa la ne ñu fekk ko fi rek daal di xool mbëggu Fall Zikroula taalibi sëriñ Matar Matar nan lay joxe ay ndogam fii ak ñi mu àndal ci Caaroy ñu dem ci biir xool nan la ñuy joxe seen ndog à tout de suite dan le moon zele dana wa daay wa moon zelel si faay wa dawaay man amaral ibaadi bi duwaay li yat fa woo bi anil balaay suma ala man xaysu man zaza maradi yabra ubila butin wa faza bil haradi muhammadun tabibin al hakim aska sala may rabbin al karim wala li wasakh bi zawil halai ma seug bi ma ngi ni di la ziar de lo ziar sonna ba ma ngi jam bax machallah ñi sante bu baaxa bax tour bek sante bi nan tur bi Samba Ndiaye la. tey nga gis Mbëgg Fall ñëw tey seen gox si koñam fi nga xamante ne fi la soqeekoo mu def fi ndogu lu rëy lu toll nii loo koy wax. waaw Mbëgg moom daanaka fii mu ko defee mooy Farba mais ñun ñi nga gis ni ñu ngi dëkk ba ginnaaw raay maanaam baaxam ak yëg ak oyofam ak maanaam bëgg ndaw ñi daal moo tax ñun ñu déplacé ñëw teew pour taaral bisam mbëgg jàmbaar la jàmbaar Sëñ Tuubaa la te rawatina jàmbaar Baay Mataar Mbàkke la waaw amul ku dul sëñ Touba te mu bëgg taalibe Cheikh Fall te Baye Fall dëgg nag mooy mbëgg bëgg Fall waaw dañ koy ñaanal daal li mu def li muy def nii daal chaque année day gën a yokk di faw xa waa chaque année nag day gën a fawxa chaque année gën moo am yokkute waaw loolu lañ koy ñaanal bu baax a baax te ñu ngi gis tànk yi mu ngi dem bu baax tànk sëñ Touba mu amul tànk ginnaaw da ngay di dem rek mais du arrière fu waay yam moom yaa fa yemale sa bopp rek waaye mu bëgg Fall na loolu ba tax day dem rek amul tànk arrière waaw macha allah kàddu gi rafet na da Ndiaye. waaw yow ñoo far mooy loolu. waaw asalaamaaleykum soxna si maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccu. lay fay. macha allah tur beeg sant bi naan man na Yande Ndiaye. nga sant. waaw ndogu bi fi ne yaa ah, <laughs> nga sant. baa xam nga loolu. ah. boo <laughs> gisee mbëggu euh, ndog yi nga xam lu fii seen koñ. Hmm. comme mbëggu. mbëggu dëgg fa dafa baax chaque at da koy féete fii la koy defee wax dëgg fa yàlla macha allah. dina jox ñi ñu ndog ba suur jox leen ñu reer ba suur jox leen ñu xëdd ba suur wax dëgg fa yàlla moom bëgg faal daal moom nit ku baax la wax dëgg fa la macha allah boo koy doog dëggal tey ji boo boo boo toogoon man di ko conseil yan conseil nga koy jox. ah xanaa mu gën a góor góorlu rek gën a góor góorlu moom gën a yokk loola te moom moom sax moom dafa am jom moom jom moom macha allah. li xey liggey lañ ko xamé gisunu ko dara si affaireu ñak fayda yi wax dëgg fa yalla ndax buñ ko gisoon si affaireu ñak fayda amana li ni duma ci sax ñew billah yalla ngay jaajeufal ba assalamu alaykum señ bi ma ngi lay di la ziar do doolu ziar bi wor yaay boy bi ñu lay ziar bu baax baax nga jossé wa tour bi nan la ak sant Xaadim Dieng yëmbal Xaadim Dieng ñu fekk la tay fi ci bésu mbëgg bi ñu bëggoon xam la mo waral téway bi wa lu wara téway bi mom lenn kessa la mi mbëgg mom ku baax la suñu mag la nekk si koñ bi waaw di dund Baye Fall bi quoi wan ñëpp yar ak teggin te man moom wax dëgg yàlla nit moom boo ma joxee cër xam fu ma teg rek man dama lay soog jàppale bu baax a baax te moom wax dëgg yàlla sama waay la sama papa la sama kilifa la moo tax lépp lu mu xew la rek ma sori woon wax dëgg yàlla man may jege si parce tamit. dama ko ji daal woon na Serigne Touba mën na kon fii ba France sax may dagg bee ñëw parce que yëg-yëg la te cër bi jox na ma ko ba ma gis ko waa te lépp lu ma xew la rek wax dëgg yàlla man damay teew si ngoon laa fi ñëw na wante sama yéene daal ëpp na de bàkki Serigne Touba ma señoon lépp luy lépp luy tege fii muy nag muy gëlëm muy xar muy lépp billaahi wallaahi wa taalaahi dama koy tegal parce que tamit muy yëg-yëg bi wallaahi damaa bëgg fu mu munti nekk damay woo téléphone duma message du ma def lépp loolu noonu yëg-yëg boobu rek daa for kon dama koy sant baax di ko gërëm te bisam bii nag bu dëgg yaa sax at na koy def te lii nii mënut a weesu liggéey Serigne Touba parce que day togg ay ndogu def ay bender def lépp woo ay mbokkam ay soppeem joxe ko bu ngoonee mu cant kon loolu tamit liggéey Serigne Touba kon dañuy ñaan yàlla rek mu koy yàgg di ko def ay ati at si bàyyi Seydina Mohamed. ça va soxna si na def maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay soxna si. macha allah say ngeen rafet na. merci waay tuddee naa la. tur bi nan la. dëggeen fay. dëggeen fay yow noo gisee bisu mbégu bi tay faa. ah gisee naa ko mbër gu def lu ma mën si wax moom mbër gu baax la bëgg na xale fu mu romb di la nuyu am na yitte. ñoo lañ gis si moom macha allah muy joxe ndogu ñooñu defee ko feneen fu dul koñam kon ñu wane ni am na jaam ci koñam am na jaam si koñam moo tax ñu defee ko si moo tax ñun ñëpp ñëw dajale xale yi mag ñi ñun ñëpp organiser ndogu bu baax la dëgg fa yàlla macha allah lan nga koy dënk mu gën a góorgóorlu rek dëgg fa la ak koñam bi ñëpp bëgg nañ bëgg ñëpp dëgg fa yàlla mu gën gor góorgóorlu rek. incha inshallah fay biram Penda Waagaan maa ngi lay jaajëf. <laughs> maa ngi lay fay. soxna si maa ngi lay nuyu di ziar di jox sa wàcc. delo ziar maa ngi lay fay. macha allah tur beeg sant bi nan ay da gay gay Ndioro Bassi ba ci yow no gisee tay bés bi nga xamantene mom la bëgg organiser fi seen koñ ay ASC farma ak ah, xana kontaan rek parce que Mboubou fal mom mo nekk nit ko xamantene ke ni rek daf ñoo jaral motax nak ñu ñu ñew ci bis bi ni def ay ndogok yoy nonu mooy loolu. macha allah ñu gis ne euh, nekkul première fois mu koy def. waaw nekkul première fois moom mu koy def yàgg na ko def te dañ koy ñaanal rek mu yàgg ko di def tamit. Mm-hmm. macha allah nan la dëkkee ak yéen fii ci koñ bi. ah mbëggu de li mu fi dëkkee ak ñun mooy wàccee boppam comme suuf si. di kafak ñun di reetaan ak ñun ba pare nag bëgguñu ñu bëggal ñu boppam taf ñu ci boppam ndax tey jii su ko neexoon mu ne ñun ay xale lañ duñ ko jox ñu ko duñu jox ñu koy defaral ndogoog genre yooyu noonu mais nag deful loolu daf ñoo jël rek bëggal ñu boppam te yàlla rek tax billaahi. macha allah macha allah lan nga koy mujjee dénk si kàddu. ah di ko wax rek mu góorlu mu góor góorgóorlu te lii nii kenn bañ ko cee jëlee te tamit mu bañ a déglu waxi kenn te continuer li muy def nii te xam naa ne ci kàttanu yàlla yàlla dina ko jàppale mu continé ko rek ñu fekk di ko yàgg di def ay ati ati at. waaw salaamaaleykum sëñ bi maa ngi nii nuyu a la ziar di jox sa wàccuwaay. delloo ziar yaay booy. maa ngi am tawféex bu maa ngi sant bu baax a baax. macha allah tur beeg sant bi nan la. waaw ah, man jibi jenn laa tudd jibi sëñ Sidi Mbacke alxuraan sama yaakaar adduna ak alaaxira. macha allah yaa ngi yaakaar ko jërë ñu bokk ñu ñëpp macha allah tey Mougou Fall doon fi joxe ndogu fi nga xamante ne mooy goxam fu mu soqikoo lan ngay lan nga gisee li nga xamante ne moom la def mu defee ko fii ci koñam te defeewu ko beneen koñ. waaw ah, loolu dañ koy rafetlu jëwriñ bu neex a waaw suñu ndigal rek la ñuy doxloo mosu ñoo doxloo loo xam ay caaxaan la waaw fu ñu fekk biñ tooyee dara leneen ñooy dem cant bu ñu bàyyi mënu nañu dund leneen loolu dañ ko siy sant di bu ñu jëlee bis bii bàyyi fépp ñëw ko fii defee ko fii la ko yàgg defee sax ko loolu dañ ko sant bu baax a baax waaw di ci jaayante nag am si ngërëmu Sëriñ Bamba loolu la ñuy ñaan fi ñu toll. ko tey lan ngay conseiller mbëgg en tant que frère. Ah, moom amul lu ñu koy conseillé nag exemple lu baax rek lay def si ñun chaque jour chaque jour dinaa bi leen toog bàyyi faa lu yaafuus. da nekk si waar ba chaque jour bu leen wàccee lu mu gàtt gàtt guddi su amee can dañuy woon ne fa leen ne ñoo ñooñu koñ ba. mu ne nee ñu ànd caaroy cant wala ñu ànd benn baraak cant wala ñu ànd feneen cant loolu lañ ko ciy sant ndax mu ngi def si ñun lu baax loo xam ne ñun loolu la ñuy dund cant gi mooy suñu soirée mooy suñu waaw ñun li ñu am rek sëñ bàmba ñu ko gënal te ku ñu gisee a teg si yoonu sëñ bàmba ñun amuñu fayam mbëggu dafa defal jeunesse bi mbëggu xol bi moo rafet lu ko waay defal rek am lu des waaw borom borom yërmande la dañuy fekk ñu toog sax ñu toll jumaa sax mu yëkkati mu ne xéewalam jox ñu ca mbokk internet yi ku waral suñu déplacement ñëw ba fi nga xamante ne moo di Caaroy Farba ki nga xamante ne moo taxoon jóg muy mbëgg Fall Zikroulahi taalibe sëñ Matar mbëgg mbëgg nuyu naa la ziar naa. waaye ñu la koy delloo ñu koy delloo bu baax a baax a baax di la ziar bu baax war na sëñ Touba Mbacke di ziar mbokk taalibe yëpp war na sëñ Touba di ñaan ñëpp jaamu waaw di ñaan ñi ci lal hôpital yi ak ñi xama caabi féete ginnaaw ñëpp ñu ngi leen ñaanal di leen ziar baax a baax a baax si bàkk Sëriñ Touba. macha allah mbëgg ñuy gis ngay joxe ndogu chaque année tey nag nga ñoo defee ko sa gox fa sene koo defaale cant bu tarkala macha allah lu waral initiative boobu. waaw ñun fi lañ dëgg amuñu lu fii wër na sëñ Tuubaa lu ñu mën a am lu ñu mën a xam rek fi lañ ko xamee waaw fi lañ tàmbalee fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo wax dëgg yàlla waaw moo waral rek ñu defee ko fii wër na sëñ Tuubaa. macha allah ba témoignage yi nga xamante ne moom lañ fi jot a far ñu dëkk ci bi dañ ci a rafetlu bu baax a baax da xam ne nii nga nekk ak ñoom mbëggu sa digganteeg sëñ Matar la la waaw sëñ Matar mom, xam rek da di sama papa di sama yaay di sama kilifa ah, wa ah, man ma sekk nak gëm lu mom nak worna seigne na mbake wa ko dul sëñ Matar ci man rek da ngay xaar waaw ndax man moma moma def lima doon te ji bu dul mom te ji kon dina yéeme lol barki seigne touba mbake dama ko ñaanal rek mu yag fi lol lol lol lol lol lol ngir manam sëñ Matar manam dama aadama dañu war xam kan moy Matar ngir manam mom waaw. Saar Mané maanaam ku ko sut ci at yomb na waaye ku ko sut ci baatin wala ku ko ëpp xam-xam wala ku ko gën a baax wala ku ko gën a yor ji ko julit loolu yombut wër na Serigne Touba waaw dañ koy ñaanam yàgg fi lool waaw kenn du moom daal moom waaw dañ koy baag lépp waaw moom mën na kanamam mën ginnaawam barke Serigne Touba. bëgg faa ñu xam ko ci zikru laa dama koy jox micro bi rek mu daal ñu ma daal tuuti rek may ko askan wi may ko mbékku internet yu Caaroy info TV yi ñuy seetaan وخاني خفيس خا خير جل ما نها جميع الأذى والخير اليوم تائه بمبا جارا أن يلقاها رو من جملة الهدى وخاناتهم الأرمى هم والمدافع Seex Bamba la xoojal la kulli wax وربي وحافظي به ينتفي عن البلا والوخائه jërëjëf Borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul macha allah kàddu gi rafet na jërëjëfe Serigne Touba la wax jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jasaaka maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina ñuy kontaan ci baat boobu nga xamante ne mbëgg Fall Zikrullaa yëkkati na ko waaw dañuy daal di xool rek li nga xamante ne moom lañ mujjee def léegi léegi ñu ay co mbokk internet yi euh, ñu ci ndogu bëgg faal zikrulaay tey nag mu daal di dalal ki nga xamante ne moo di sëriñam sëñ Matar nga xam ne bëgg lu mu wax ni sëñ Matar fu mu jëm ne sëñ Matar tey nag mu daan ñuy indi ci ki nga xamante ne moo di sëñ Matar ñu fasantee feggante mu ay kàddu yu am solo fasene koo laaj diggante mu bëgg faal sëñ bi gannaaw bañ la nuyoo ziar la jox la sa wàccuwaay ñu ngi lay ziar baax a baax. waaw xam naa ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di bég kàddu yi ak déplacement bi te kenn rek waral ko muy mbëgg fàllu mi nga xam ne mm, jëwriñ la ci kër gi doon ci taalu bi ngeen def lu am solo loo xam ne sama xol sedd na ci ma bëgg nag lépp lu ñu tàmbali lu jëm ci loolu faaw rek ñu dugal ci euh, lu mel ni ubbee xasaayit sëñ Malick Sène ubbi euh, lu mel ni xasaayit ko defee nga xam ne bu noppee bëgg faal da koy mën a tëj ci turu yàlla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 ضلال ليل هلما ولا أولياء من لا يسأل أخوتي وأولياء macha allah kàddu gi rafet na lool lool lool lool waaw te li ñu fi jàng ci xasida aussi tam neex na trop macha allah ñu koy jaajëfal dañuy woyal waxtaan bi tuuti rek ak sëñ Matar sëñ Matar ñu delloo la kàddu gi rek sa digganteeg mbëggu faal bëgg naa nga ko pour mbokk internet di ñuy seetaan ndax yàgg nañu seetaan mbëggu faal ci suñu chaîne bi muy tudd sëñ Matar mais tey la yàlla dogal gise bi tey la yàlla dogal waxtaan bi ñu bëggoon xam lan moo nekk sa digganteeg mbëggu faal. waaw ñoo ngi leen di nuyu bu baax yéen waa télé bi yéen tam Euh, yàgg nañoo dégg seen mbir ci bëgg fàllu te gisante woo ak yéen euh, kon bu suñu borom dogalee ñu dem ba jotaay boobu am ci ni ngeen di taxawee ci biir euh, réew mi ba yu bëree bari ñu koy taatan ci seen tele loolu lu am solo la te loolu nag yàlla na yàgg waaw bëgg moom hmm, mën nañ ci am lu ñu seeree ndax taalibe ak sëriñ dafa am lu ñu séq heur bo waxé ni djebuluna seigne bi dégg na ko soo jëfee ci lañuy ragné ràññee yow ko talibé nga euh, kon wax gi amna djef ji amna euh bari wana ñu bari ño xamné dañ ma koy laaj ngir rek pas-pasam akuk taalibeem ak bëgg gu ma bëgg man té ma lér né seigne touba rek motax kon nak lolu ñong koy serigne bi te yéen ñi nga xam ne da ngeen ñëw bëgg am lu ngeen ci xam am na ci loo xam ne faw rek eh, ñu ñu ñu ñu mën koo feeñal ci ci saayir waaye am na ci loo xam ne mbirum bàttin la waaw moom nag moom nag taalibi la boo xam ne eh, wax dëgg yàlla moo ngi ci ndigal eh, bëri waa na yoo xam ne nii su bàyyikoo ci sunuy kilifa jëm ci sëriñ bi bu nu ko ca féetalee fa mu war a féete da ca def kemtalaayu kàttanam bokk na ci màggali tuubaa yi wala màggali daaru moxti yi wala cant yi ñuy def fële waar wuñ ko féetaloo bay ko dana ko bay ba mat ànd ak ay mbokki taalibeem ñëw teew màggalu daaru gi moo ci mujj waaw loolu nag nu ngi leen koy seddeel bu baax a baax taalibi la boo xam ne daal li ñuy wax maa ba dëgg-dëgg muy bëgg ab sëriñam mu loolu la nit ki yéegee sëñ bi bëgg gi mu lay bëgg maanaam nga yëg ci du yomb waaye yow taalibe gi bëgg ngay bëgg sa sëriñ ba mu jaral la sa bopp foofu la yéeg gi am te loolu mi ngi ci def kamtalaayu kàttanam. incha allah maanaam tey bu ñu doon wax tey lan nga mën a dénk ki nga xamante ne moo nu bëgg faal maanaam sa kàddu gu mucc ci moom lan nga koy gën a mën a ñaax ci discours laa bi mu nekk. waaw xam nga xam nga loolu moom mooy li sëriñ bi bëggoon rek laa koy dénk. waaw euh, muy lan li lépp lu baax mu na ca lépp loo xam ne safaan ba mu bakko te loolu lañ gis ni mu ngi ciy dox xam nga yoonu murid yoonu murid moom dafa am ñetti baat yu ko tënk yoo xam ne ba àdduna tukki du sanse ci ñun ñi gëm Serigne Touba mooy xidma aw bi bin aw addiyaat yi moo tax kan la ko jiitu woon Touba li abdin muridin sadiqin lahumo loolu nag moo tax te moom mi ngi ci mooy mahaba bi sëñ bi am mooy moo taalibe bi am sopp ak bëgg sëriñam moo tax muy mu bëgg sëñ bi ba joxe boppam waa xidma mooy ci lim nekk nii lu ndigal jóge rek mu def ci kemtalaayu kàttanam ba ñaqam génn awaadiyaati mooy fu ndigal jubee rek ba ba ba teew si ci noonu jàll ci ñoom mu def ci kemtalaayu kàttanam waaw kon daal loolu moom mi ngi ci def wax dëgg yàlla li ab taalibe di góorgóorloo ci kër sëriñam kon kàttan rek lañ koy ñaanal ak doole sant ku ne léegi lan ngay tàggatoo mbëggu waaw tàggatoo bi rek mooy maa ngi sant gars yi jàpp ci cant gi yëpp waaw amaana bu ma limee damay juumee mënut a ñàkk waaw maa ngi sant Pape Faye bu baax a baax baax a baax waaw moom suñu grand suñu lépp la wax dëgg yàlla lépp lu ñu fiy def da ciy jàpp dugal ci ñaxam Moussa Mbodj maa ngi koy sant di ko gërëm war na Serigne Touba Mbacke di sant Dame sama xarit di sant Mëndooy Pape Soulay di sant waa 100 pour cent Baye Fall bi maa leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax su ma jëlee affaire bi teg ko ci loxo Cheikh Fall ak Nees ak Mama Ndiaye yaa xanaa naa tudd naa ñu des ñëpp bàyyiwuma kenn di sant soxna yi taxaw liggéey bi nii yëpp ak sama gaay yi nga jàpp waa Kortement Tali Diallo ma seen fay Moustapha Badiane Tafa Badiane maa ngi koy sant bu baax baax a baax a baax ak Fallou Baye Ndaw maanaam ñooñu dañuy jàpp samay mbir ak waa Kortement Tali Diallo yëpp war na Serigne Touba Mbacke waa di beral sant gu wér nag Cheikh Matar Mbacke man nu moom la nu mel moom la war na Serigne Touba dama koy sant bu baax duko ko ñaanal mu mangisan fi maa ngi sant sama waajur bu sama papa ya na ya wéral ay cëram yàggal ko fi maa ngi sant bu baax sama yaay maa ngi koy sant bu baax baax waaw du ko baax mu yàgg fi ak képp koo xam te may na sëñ Tuubaa maa bu baax a baax di gërëm Modou Mbaye dafa ñaw yére bu rafet may ma ko wóor na di sant Papa Ndiaye ter, damay ñaw di ñawal sama dom te du ma ko jox tisi du ma ko fay dërëm wóor ak képp man daal day nit ñi xam nga lu ma leen defal daal wax dëgg man dañuy sonn si man daal man doy dama koy sant bu baax a baax moom da ciy jàpp bu baax a baax ci lépp nag waaw sama rakk la sama xarit la waaw ku ma tudd sa tur rek barki sëñ Touba sant naa la gërëm la waaw mais kon naa si ñëpp sant gi ku ñu si teew ñu si teewul ñëpp sant naa ñëpp wóor na sëñ Touba macha allah kàddu gi rafet na yéen a ko déggandoo sëñ Matar ki nga xamante ne moom la mbëgg Fall jox boppam jébbalu ci moom ñaanal na ko te dénk na ko ay kàddu te yaakaar naa ne mbëggu euh, kàddu yi la jox dégg nga ko bu baax a baax a baax a baax te bañ la xamee ba tey ci zikru laa lañ la xamee comme li olof ñaay wax rek comme tamit li àdduna di wax yëpp euh, yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ba tax na mbëgg bañ ko xamee ba tey ci avancement lañ ko xamee di ko ñaanal yàlla mu yokk bu jëm ci kanamu kanamu kanamu kanam di ñaanal Serigne Matar Mbacke aussi tam mu yàgg fi lool moom tamit ak mbooleem mu mu àndal rek di wax ni rek tey seen émission kaay ndogu nii la tëddee woon tey ñëwoon fee caaroy farba seet si woon mbëggu faal zikru la ak mbooleem lu mu àndal doon joxe ndogu foofu sa caaroy ñëwoon nag seet si waale waale sëriñam bi nga xamante moo di sëriñ Maxtaar Mbàkke dañ leen di jaajëfal mbokk internet yi ñu doon seetaan di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen koñ ak yeneen i jeunes yu ñuy xaar ci joxe ndogu seen émission kaay ndogu jërë ngeen jëf ngir gën a a Abonnez-vous à la chaîne YouTube bu info TV nga pouvez di bës li nga cloche bi ngir mën jot les notifications.